fu mu toll ci ndigal li rek nekk ngeen ci wetam takk lool ci kuréel yëpp nag yéen ñëpp yéen ñëpp la gis démb ba tey ña ngi fi waaye ndigal lim joxe mooy liggéey bi day continuer liggéey bi day continuer ndax lee des fee bu paasee samedi dimanche bi camion yi ak ñi nga xam ne ñoo yore peel yi ak techniciens yi dana ci continuer waaye samedi dimanche bu nekk incha allah dees na joxe ndigal ñu ñëwaat fii lépp luñ fi war a setal ñu setal ko gis na nag seen engagement bu baax a baax a baax ndax fii day melu woon nii yéen ko tame ba mu mel nii waxuma la ba ngeen ko tame waaye lépp loo xam ne tax-tax génne ngeen ko fi muy góor muy jigéen te boo yemu ci xéewal yi andi ngeen ko indi ndox indi loo xam ne war nañ koy jëfandikoo lépp indi ngeen ko ma ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. dëkk ci wetam di nuyu mbokki taalibe yëpp di wax ne man nag sama côté li nu soxla mooy euh, côté état bi la rek mënuñu ñàkk gërëm service état bi nga xamee ni ñoom lañ bokkal comité local développement bi. parce que bi jëriñ woote point de presse bi nii nañu def dañu def benn CLD keroog talaata. ñu woo lu mel ni service d'hygiène woo ICG mi yor bi biir Dakar woo sapeur pompier yi woo docteurs yi woo croix rouge woo olas woo ñëpp ku ci nekk am fànn goo goo féete ci liggéey bi lépp na ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa rek ñoom it wax dëgg yàlla ñu nangul ñu ko niñ ko bëggee woon volontaire ni lépp liggéey bi nañ ci taxaw waaye ICG surtout indi nañ fi ay pelle indi fi ay camion ci ndigalul Abdou Karim Fofana ministre de l'hygiène publique ànd ak ñun ñaari fan yëpp ba mat mu du du ngërëmal politique du ngërëmal wax nit lu ko neex wante duñ jëf la service d'hygiène ñoo désinfecté fii ci jumaa ji poudre fi pompe la na mu def ko UCG boobu ba léegi seen mi ngi dama ko ñëw a ah, ñi def aussi onage ñëpp ku nekk ñëw nga def sa ñuy indi seen i ay ndox ku nekk jëm dara te loolu rek lañ soxla kon diwriñ loolu la ñu bëggoon a seedeel